c'est cimetière l'océan Atlantique est devenu cimetière pour nos enfants suñu nous sommes gi mu nous di lek ñu opportunité yo xamné mënon nañ ko am fi ci suñu réew nous mbépp politicien bu ci mi pour yow Nous pour ñun Sénégal 700 km. ci plage rek Sénégal ba mat amul de réew ci kaw doomam yi di ko daw di jël géej gi di dee di uti opportunité loolu ku leen wax ne dëkk boobu mi ngi émergent wala mi ngi développé mu leen di nax mi ngi nax boppam ce pays est en danger et ce pays dafa nekk ci oppor ci problème boo xam te ni il faut ñu faj réew mi réew mi dafa feebar te yéen yéen ñu mën a jàppale ñu def loolu li tax tey ma d'accord ne dama bëgg a ñëw d'accord ak yéen damay ñëw engagé wu ci li xew ci réew mi moi je suis comme ces jeunes hein. suñu doom yi dem bitim rew man xamna lu leen yobbu man dama tok amerique di xol li xew suma rew mané Washington di setan Senegal, di amal njëriñ dëkku jaamur sama rew soxlam tul nek. ma ñibisi lu nek dajna ko ci rew mi lu nek dajna ko lu ngeen xam ak lu ngeen xamul

Le plus def dañ koy outil bitim rew rew mi il faut que ñun jeunesse mi ñu nous, tabax ko mënatuñ ko bayé politiciens yi dang Nous jël alal rew mi def ko ci sen kër yi Nous tabaxé diko jox yeen diko def ay building bu politique ñoy ñu jox len ko yeen ngeen di dé ci Nous gi ñuy Nous il faut ñu changer dëkk bi oui not me. ensemble on va changer ce pays

c'est la fin de la colonisation économique dans notre pays. On va révolutionner notre système éducatif. dañu fexe ga jeunes yi Nous allons les sciences et technologie bokk ci ñuy faire téléphones yi de AI artificial intelligence bokk ci faire des robots, yi bokk ci ñuy avions. avion il faut ngeen rêver c'est-à-dire Africains, dañu war a dépasser di télécharger mais du upload pour l'internet pour le monde entier te li ma leen wax du rêve ah dama ko testé dama ko def ci réew mi ba pare. le palais de la république la pale de la république bi nga xam ne Sénégal moom la ñu gouverneur yi doon nootee mu ngi jàkkaarloog beneen building bu ñuy wax le building administratif Mamadou Dia man su ma jëlee réew mi Sénégal dama koy tëj tëj pale bi. tëj building bi def ko université Ivy League boo xam ne dana jàngal ñu war a téye réew mi ëllëg ak Afrique. am nañ palais bu bees beneen palais boo xam ne kenn dematu fa mi ngi popp ngeen foofu laay dëkk ku ñu soxla ñëw ci tool yi fekk ñu en tant que président de la République. je vais protéger les femmes dans ce pays la violence faite aux femmes c'est fini sur le président Tonya. Niang amul dul fii su ma président de la République le Sénégal on va mettre le Sénégal au travail ñu nekk dëkk boo xam ne day bay lu ñuy bay fii ñu koy

le 100 hectares fichibir qu'un étranger n'aura 100 hectares euh, plus de 100 hectares dans ce pays et tu n'auras pas plus de 99 ans non non non 30 ans maximum pour ton bail c'est les nationaux sénégalais d'abord le sénégalais d'abord on va inchallah on va protéger nos ressources naturelles parce que nos ressources naturelles doivent d'abord servir nos enfants doivent construire notre pays

mais depuis l'indépendance on a les mêmes politiciens depuis Abdou Diouf bëgg avons mi passer bu Sénégal liggéey ñu la nga nous fi bu bi sous ma présidence je ferai tout pour que Sénégalais on fera des champions des milliardaires sénégalais que l'argent restera dans ce pays on va créer de l'emploi dans ce pays parce que mais d'aujourd'hui je m'engage pour changer mon pays avec Bi Ça va être de oui, not me. Oui, not me.